ministère de la jox muy microfinance ak économie sociale et solidaire dafa fait lool njitu réew motax mu délégation def ministère plein ne lépp de microfinance la na ngeen leen jappalé ba nga xamné dinañu askan demande de financement yi ñu recevoir ak activité bi ñu def salon économie sociale et solidaire

Euh, ceci population avec la proximité alors ministère de la microfinance ñëw tànn ñu ci ñi fi nekk pour ñu ànd ak moom ci liggéey boobu mbégte pour ñun te di ko xamal it euh, lépp li nga xam engagement la crédit mutuel danañ ko respecté ci kattanu yàlla suñu borom et puis dinañ ànd ak moom ci liggéey bi na mu ko bëggee euh, enveloppe bi nga xam ne dégagé nañ ko fii incha rabbi distribution bi du ci ñun crédit mutuel li mën a def mooy képp koo xam war nga ciy jot ñu jaarale ko ci crédit mutuel da nga ci jot bu sobe yàlla loolu mu ngi dépendre ci autorités yi nga xam ne ñoom lañ ko jox fii à savoir gouverneur préfet yi ak su préfet wax nañ ko fi. kayit gi ku ko yor na nga xam ne ndimbalu président de la république moo jóge ci moom ñëw ci yow ngir nga dimbali kooku du looy fay. donc mbooleen ku yor këyit gi boo ko jëlee dem poste ndax biñ koy def. dañu ne comme la poste ñu ngi ci Sénégal dañuy jël lëkkaloo ak poste ñu xaatim ak ñoom convention kon ku yor sa bon da ngay dem poste poste jox la sa xaalis nga daal dem yow ak sa groupement nag ngeen fexe def ci lu mu ëcc ayib. courant yi nga xam ne yéen a ngi ko doon fay te mu diis ci yéen ngeen seet nu ngeen ko ciy dugalee engrais bi ñu doon wax te mu xaw a diis ci yéen ngeen seet nu ngeen ko ciy dugalee nag yi ñu doon wax sànq. nag yi ñu doon wax sànq ah su fekkee ne mbir mi takku na wala mën ngeen def chaîne de valeur ñaar ak ñett daje ngeen ne ni ñu jund suñu jur commencé def ngir mu yokk donc maanaam investissement la boo xam ne jàpp nañ ne buñ ko defaree ba mu baax dina mën a am njëriñ. am na ay réew yu ñu wër gën ñoo dëgër ci économie am na ay réew yu nekk ci àdduna bi ëpp ñu koom-koom ak xarala ma ne nii Macky Sall defee pour sukkandi néew bi doole yi. sàmmkat yi baykat yi dimbali dund jàppale ñu doon liggéeyee ko portu ma ne ñooñu defuñ ko. li tax ñuy sant ti gërëm mooy fi mu ñëwee daf fi neex lool ndax dafa fekk jigéen ñi sonn daan dem luuma di dem ci tool yi di liggéey yàlla def loolu am kenn dematul madam la ministre ñëw ànd ko président de la république nga xam ne fàttewul jigéeni Kaffrine kon su ñu ñëwee tey indil ñu ndimbal li dañ ciy kontaan. bekk ci di ñaanal président de la république fi mu bëgg egg yal fa yalla eggale ministre ñu ngi koy sante di gëreum contane nañ bu baax bekk nañ bas mi ak suñuy taxaway ñepp wara taxaw ñu xex ko ngir mu jóge ndax bu fi yagge kat dinañ son opposition majorité société civile ku mënti doon mbass mi jéxagul kon damay ñaan di lancer appel ñun ñëpp non seulement ñu ci wat suñuy xel mais ñu gën a taxaw ci xeex mbas mi ba mu jógee fi ndax même yeneen réew yi nga xam ne mbas mi duggoon na fa bañ foog ne jeex na ma ngay ñëwaat kon foog ñu ñu xool loolu gën ci bàyyi xel